donc comme yow yaay euh, coordinateur euh, euh, CRPA au niveau de fi nga xam ne moom mooy Wakam. Dakar Ouest donc dañ lay bàyyi nga wax ñu comment fonction li nga xam ne moom mooy CRPA de Dakar wes waaw waaw jërëjëf ñaa doole di leen sant donc loolu dañ ciy sawar di tontu mu nekk loo xam ne lii CLPA yi booy seet au fond kuréel yi nga xam ne ñooy yëngu si napp yëpp muy mareyeur di femme transformatrice. CLPA yi ñooñu ñu ko si biir parce que CLPA boo gisee état bi moo ko créé CLPA rek moo am sañ-sañu si gox bi mu ne li nga xam ne nit ñi d'accord nañ ci mu uti ab dogal si préfet bi CLPA moo am loolu parce que CLPA yi seeni secrétaire mooy chef de poste administration bi nekk si baax si si gox boobu le président préfet bi nekk sa gox ba la wala le sous-préfet donc mu nek kuréel yo xamné aussi lan mo tax ñu wax CLPA terroir ak métier bo déggé CLPA terroir moy CLPA bu comme ni mu bolé wakam Ngor yof ñun CLPA de terroir la ñam CLPA de métier benn gox rek bu nek cundum si benn béréb boo xam ne bi jigéen ñoo la wax yenen dëkk yi loolu la wax CLPA de métier CLPA nak boko déggé aussi modi né gox comme moom ngi wakam ni Wakaam Ngor Yoff bu si il est composé de collège collège moy par exemple comme nous ne mool pas pas de ak c'est mm. un collège nous, nous, xam nga ça les permet nous, sommes ñi de journaliste ñu nous, seen problème mm. bu nous, lu neex la nous, délégué donc nous, yi def nous, femme écailleuse femme transformatrice yi Mali, yi nous, la tournée yi kenn ku métier nous, ngay un mm. nga collège collège nous, un délégué délégué un adjoint ou quoi, c'est instance de décision bu moy ICC bi xamné ne kuréel ga ñooñu ñëpp dañuy am ay postes yu ñuy def commission yoo fay né ñooñu ñoy regrouper wu gis né waxamkat am na tel jangoro bu fa ne moo lu caasi ñoo wax wala mareyeur yi wala moo lu mbaal yi naka la def pour safar ko si gox bi comme ñun ñoo bokk goj ñoo bokk zone bu ñuy évoluer ñoo bokk presque ay xeer mais kenn ku si nek rek am nga tour xeer boko déggé ci geej moy place béréb comme ni ñu ñëwee GF voilà xam nga nit ñi nga wax ana xeer yi nga ngay xool ni si géej gi doo gis xeer waaw xeer yi ça veut dire mooy coin de pêche yi coin de pêche yi dafa am ay ay ay xeer yu fa ne yenn yi suuf la mais bu buñ déggee boo déggee xeer xeer bu nekk nag am na tur boo ñëwee ba xam ne xeeru maam jëndee gën waaw xeer xaw ma ndar xeer xaw ma la dafa fa lañ def. jatara waaw fa lañ def maanaam man la lay mën def affaire pétrole ci ab. xeer ci kaw xeer waaw waaw xeer loolu la nag bu ñu ne xeer mooy coin de pêche ba. Ah, mooy coin de pêche bi fii bëri ba ñuy nappe. ah moom moo tudd jatara.

pourquoi parce que dañ préfet bi warul nekk président mais man dama suis ànd man Mamadou coordonnateur au niveau CLPA Dakar Ouest Beaucoup de réseau le département de Dakar aussi maay coordonnateur donc am na benn résultat au niveau national il y a le réseau des CLPA mais préfet bi président bi chef de poste bi nekk l'administration. administration bi nga xam ne la jegeñ donc day yombul suñuy mbir ñun ñooy waxtaan dogal bi administration ngi nii état kay dogal mooy préfet bi ñu xaatim mu dem xam nga loolu seen yombal say mbir bu loolu ñu nu neen la dafay laaj benn transition c'est-à-dire que weer ñaari weer ñu nekk ci benn mbir procédure yéegal wàccil kan moo war a signé nekkoon na fee nekku fi xam nga loolu am nañ ci ñun ñu si d'accord mais moi je suis d'accord niñ ko état la noonu lu baax la léegi nag lan moo si ne mooy jëf ji war a yóbbu mbir mi muy collège yooyu comme ni ma la waxee kenn bàyyi ñu kenn jaaykat daf caafe charpentier bi sax mu si biir pompiste bay jaay essence sax muy si biir. parce que am na lu ñuy wax service ñooñu foofu lañu leen dugal. donc ce qui veut dire que ku yëngu si géej rek yaa ngi si biir CLPA yi. waaw léegi nag tey waaw kii ñaar xam nga léegi nag yéen ñi nekk ci wàllu napp gi. dëgg-dëgg uh-huh. tey bu ngeen doon wax lan mooy seen principal problème boo xam ne yeen jàpp ngeen ne fi mu toll nii jamono yi moom moo hmm. sooxe napp gi. li sooxe napp gi. waaw d' abord da ngay wax ne li si jiitu mooy une surexploitation. c'est-à-dire saytu c'est vrai que ñun mool yi dañ gën a xarañ léegi. dañ bari bagage suñu bagage gën a rey. beneen bi mooy accord de pêche yi aussi. accord de pêche yi gis nga bateau yi li ñuy li ñuy donc mu nekk loo xam ne nii. ensemble nguur gu bees bi amul changement ba léegi. mu ngi am changement xam naa bu leen si duggee boo ma laajee dinaa leen wax ci ci nguur gu bees yi taxawaay bi mu si am. waaw ca demal léegi léegi comme ni nga ma waxee noonu c'est-à-dire loolu laa la bëgg indi lan moo indi lan moo si sooxee si ñun. cest à

mais quelque part ça crée des conflits entre nous parce que ñun ñeent lañ kenn ku si nekk di def benn pàcc si géej gi mais bu ma la joxoñee yow ma nga saa da ngay da ngay wax ne attention man rek nga yëpp parce que lii defuma ko fi naa nangam nangam loolu dafa am suñu biir ñun en tant que pêche artisanale mooy li may wax toujours cest di dire que boo joxoñee nit ki yow xoolal lan ngay def loo xam ne li lu baaxul la ñun am na côté boo xam ne côté négatif la ñoo indi géej gi fi mu toll ni ñun ñun mool yi pêche artisanale malgré pêche industrielle dégâts yi muy def moo gën a rëy mais pêche artisanale aussi am na taxawaay boo xam ne ni bu ñu taxawoon géej gi du ñëw fi mu ñëw ñu comme la waaye mu ngi mel ni comme noonu rek yàq mu metti moom xam nga déggoon nga fi ay jamono ñuy wax ne par exemple euh, jën bu sew bi bu ko kenn jàpp mm. déggoon ngeen problème yooyu amoon au niveau de Tëngéej mais suñu mbokk Bargny mbokk Tëngéej mbokk yi ñoo ñëpp dañu amay fii la tournée yoo xam ne yi yoos boobu rek li ñuy liggéey yoosu boobu rek mooy seen liggéey xëy tëgg fi la boo xam ne yi pour jàpp yoos rek la waaw yoos boobu nag am na ñaari xeetu yoosu dafa am boo xam ne bii moom la ñuy wax ngaladaas ngaladaax ak yoosu ko benn bi dina màgg benn bi du màgg mais sur l'introduction yooyu yëpp dañ leen boole dans le cadre de juvénile mais am na nu mu doon demee am na taxi yoosu yoo xam ne dañ leen war a seetaat

parce que yu xew yi c'est toujours côtière si booru tefes yi lañ la mais quelque part jën yu mag yooyu moo fi indi jën yu mag yi léegi nag bu fi loolu amoon ñu topp di hmm. bon beneen bi aussi il y' a beaucoup de paramètres loo xam ne bi lu mel ni Nourang la tournée yi dañ gën par hmm. exemple vous la tournée boo xam ne bi dadaa 400 mètres les bu ñu la waxee ne am la tournée un kilomètre i ay 25 mètres 30 mètres 25 mètres bu jëkkoon gaal 15 mètres lay doon

texte yooyu ñoo fi ça. ba résoudre comme comme ñiy ñu sax un kilomètre donc bato à 5 km. wala 3 km. ci kaw attaquer pour que état bi jël dogal ñu soppi texte bi yobu gaali Voilà, hmm. waaw loolu bu amul donc jafé fait un tournoi.

ku si am ay tànk jéego yooyu dox. si préfet bi nga jëm. waaw mais dafa mel ni préfet bi moom mooy intermédiaire entre les CRPA. et et et le ministre wala wala ministère bi. wala wala administration bi. mais tey bu ñu xoolee yéen ñi nga xam ne les CRPA est ce que am CRPA national boo xam ne jarul intermédiaire dafay dem directement au au ministère pour rencontrer ak moom wala le président. mais préfet boobu noonu bu naree intermédiaire est ce que le préfet est sur le terrain est ce que le préfet savent réellement c'est réellement ce qui se passe euh, sur le terrain. préfet boobu si gox bi mu ne boo sollicité dina ñëw sur le terrain c'est-à-dire que comme li nga wax nii dafa mel ni euh, ñuy jot a wax dañu bax dafa dafa entente entre ministère déedéet préfet bi si gox bi mu ne lay évoluer préfet boobu sañ-sañam foofu la ne ci gox bi mu ne gox boobu nag mooy li ma doon wax léegi CLPA yi nit ñi comme ni ma la waxee di nga dégg coordonnateur bu la wax ne la c'est président yi warul nekk préfet mais man Mamadou Sarr je suis d'accord pour que ce préfet là soit le président de des CRPA pourquoi parce que yow li ngay saytu li nga bëgg mu ne mais kii moo ko mën dogal si fi nga ne mais pourquoi nga bëgg ki écarté boo ko écarté aussi saw yoon day yàgg mais li nga bëgg say li nga bëgg saafara du du gaaw mën naa saafaraw nag mais amul intermédiaire le préfet doxul suñu diggante ministère

qui nekkoon Dakar qui lañ directeur des pêches actuellement il va être accessible mhm. comme vous question dafa dit que pour accéder à l'autorité non cest à que c'est vrai c'est une réalité autorité solliciter mais c'est-à-dire que même fonctionnement de ça reste à désirer pourquoi parce que li ñuy wax faf mu waroon yor par exemple financement ou par exemple surveillance bi yeex déplacement yeex réunion yeex yooyu yenn CLPA yi jotuñ ko ba fi ñuy waxé ni. c'est en cours nag déclencher nañ mécanisme yépp mais terewul li mo waroon fonctionner ba légui dafa dess. loolu boko waxé c'est une réalité ñu ngi koy vivre CLPA ñu ngi koy dund parce que mu ngi melni mbir mo xamné ñun ñëpp dañ fi dajé. mu am kilifa te kilifa gi jox lay moyen pour nga liggéey donc CLPA yi loolu la ñuy joytu quoi en quelque sorte mais accessibilité avec l'autorité mom lolu mom amna na yéexaay am c'est vrai que di nga wax ben bir mais bir me di soxé dal, ñu nek keuy di nangam na dugg wax génne ba ba mu euh, nekk loo xam ne lii dafay mais entre nous gis nañ né CLPA aussi au niveau des localités amna ci ño xamné ni peut-être ñu ngi liggéey normalement mo la waroon légui di nga gis quelque part état bi doté nañu de barque de surveillance gaal goo xam ne gi mooy fibre de verre yooyu ngeen di gis CLPA bu si nekk am nga benn sauf par exemple Soumbédioune par exemple mooy dakaar Sud ñu nax ñoo ma nekkoon Dakar Ouest Soumbédioune si la bokkoon ba teeru bay soogi c'était des teeru bay soogi Anse Bernard Soumbédioune Wakaam Ngor Yoff ñu gis ne dafa rëy ñu éclaté ko donc avant ñu ko éclaté fekk état bi jëloon na dogal ne CLPA bu nekk ñu jox la barque léegi barque boobu nekk CLPA Dakar Ouest yor

jàppal bàyyil bu ko fi def bu fi nangam bay mu àgg fenn fi mooy yi fi jotoon am. Mhm. Mhm. waaw léegi sartam am na benn affaire taay na may dégg ngeen ci mhm. coow lu bëri yéen ñi nekk ci napp gi. mooy problème mu utinu euh, farine poisson bi. waaw léegi foofu lan mooy problème bi. loolu concrètement loolu lan mooy problème bi. mooy wax naa ne fii. moom mooy say kii boobu nga ne moo mooy deuxième coordonnateur bi <laughs> man maay coordonnateur bi au niveau national. waaw. coalition buñ créé woon au niveau de Saly waa Ndar yi ñu nga sax waa Kaayaar yi waa Jamñaajo Nduxura am na benn usine waa waa waa waa Mbuur waa waa Sanjara waa Jowaalo waa Abene ñooñu fexe nañ sax ba usine ba bañ jënd ko lan mooy problème bi cest à usine bi moo wax la tey lu leer loo xam ne boo ko téye di nga gis ne processus bi lool la tout au début euh, demande sociale la woon mais état bi moo bëggoon résoudre benn problème bo xamné bi bii mool yi doon laaj. mo di ne unité de conservation. moy jamono yi ngeen dégg né ñu ngi doon jël yabe bi di ko tuuraat si géej muy teeraat ci tefes lolu loolu def naa dégg ngeen ko. si année yi passé la yagul trop. léegi ñu te di état bi pour résoudre ce problème mool yi yàgg joytu nañ ñu defal faut au moins bu jën wi amatee rees ñonu ñu am fuñ ko denc. mais pour solutionner ça état bi indi ay usine farine poisson usine farine poisson yi nak dañu yamul sa la nga xamné mo moo leen taxoon jox jëm ëpp ba amuñu fuñ ko def ñu dem jaay usine bi mu def farine lu baax la déchets yi si marché yi mu ngi melni par exemple boutique yaax yax yax yii di joggé ci yenn usine yi aussi yi nga xamné dañuy fetti yax gi si digg bay des wala bop bi affaire yoy loolu ñu ramasse yomb bu dee si tefes yi bu nit ñi jëndé ba am lu des xam ñay gejja ñay keccax

parce que Mame Makhtar dafay dem gis ne bu jàppee mu jaay usine ci réew ko xaalis Mamadou Sarr gis conséquence yi affaire bi di jur. pourquoi parce que léegi Mame Makhtar dootu am choix lu mu gis si géej gi ramasse. Mm-hmm. donc géej gi dootu am avenir. Mm. beneen bi aussi mu ngi lor suñu jigéen yi nga xam ne ñooy keccax. Mm. ñooy gejja mm. pourquoi parce que au lieu mu jaayi ñooñu. mu dem jaayi usine ba. donc loolu yëpp boq mooy li nga xam ne mooy problème mu illay usine farine de poisson yi li ñu indi si biir Sénégal hmm. bo leen laajee nag ñu ne la xéñu xéñu xet googu ngay dégg. la pollution. fépp fu mu mënti am laalal ni ndar ba Casamance jéemal wut correspondance sétal gëstu leen seen gëstu bop hmm. ndar ba Casamance usine yi fi nekk yépp benn bu si ne laalal ni xet ga mu ngay bëgg rëy ñi nekk dans l'environnement. Hmm. pourquoi on n'a pas respecté les normes environnementales dañu waroon def impact environnemental def seen étude. usines yooyu du benn laa lay wax ni yi ñu jot a installé Sénégal benn waru si woon nekk auprès des population yëpp dañ leen waroon yóbbu alkaañ kaañ wala ñu yóbbu leen si biir fongalom bi mm-hmm. mm-hmm. foo xam ne fii kenn nekk fa ñoom rek ñoo fi ne si environnement cinquante à cent kilomètres ñoom rek ñoo foora ne mm-hmm. pour wan la nuisance bi nga xam ne pollution atmosphérique bi ñuy def ak déchets yi nga xam ne bu ñu raxasee jën yi nëb xam nga jënu nëb fu ñu dans le long terme ça crée des problèmes. Mm. waaw loolu wa est-ce que war na mën a nekk si biir nit loolu si le problème bu ma la waxee ko yu yi mu créé ñàkkum jën yi mu nar indi si géej gi parce que ñu ngay ramasse bu ndaw bi mu mag bi yëpp la ñuy ramasse

pour nourrir boobu tamit ci kontaan moom fi mu nekk nii ñoom suñu xalaat moo di <laughs> ñu ne leen euh, aquaculture waaw mais fexe leen ut beneen forme bu leen nourrir jën yi mm-hmm. nañ uti mboq ñebbe mm-hmm. wala ay xob mm-hmm. bu raayee ko jox jën yi waaw ñuy rey jën yi pour dundal jën pour jaayaat kenn yi est-ce waaw doy na waar non non dafa doy waar mbir bu doy waar la waaw waaw xam nga nourrir jën yi ak bétail bi parce que après. Sénégal aussi parce que ñun. Sénégal nous amul benn plat boire des vie c'est pour culture. et puis à l'extérieur c'est l'Europe c'est l'Asie c'est les autres continents mais pas le Sénégal. mais vous voyez que comme ils bi lu taxam ñu ko. Mm-hmm. parce que yaaboo yi dañoo demoon ba ils ñu dem ba moment donné ñoom gisatuñu li amatuñu amut voilà amatuñu amatuñu yooyu ñoom tamit ñu wàcc sur le terrain ñëw jënd ko est-ce que mm-hmm. nekkul tamit loolu mo andi loolu mo andi cause bi non loolu mo indi cause bi ba ñuy wax si ñoom mais d'abord installation yi wax naa leen jaarul yoon mm-hmm. maire yi mais ñooy signé hein, avec les préfets et autres hein. loolu dañ koy wax aussi c'est mm-hmm. l'état état mooy joxe agrément usine bu fi installé wu donc état ko yooyu nekk si gox yooyu ñooñu nga xam ne peut-être démembrement état bi la ñoom ñooy cause dugal usines yi si biir nit ñi donc usines yi d'abord loolu mooy jafe-jafe bu njëkk bi li nga wax noonu par exemple am na mais ku amatul loolu liggéey da ngay tëj yéen boo leen amatul loolu leen wax da ngeen di tëj mhm. man mi di mol bu géej gi jeun jën. mais au lieu que muy tëj est au lieu que muy tëj tey. te tëj boobu noonu waaw legui legui alternative. legui xam nga tëj bobu mën na causer leneen. parce que usine bo xamne dafa créer emploi am ñu fay liggéey. bu naré tëj aussi bobu benen situation la. mais tay yow lan nga koy jox comme solution peut-être lo xamne mën na ci japp usine bi continuer di liggéey. legui 1 usine yi fi ñu dañ fi wara joggé wa waaw mom lolu mom c'est tout à fait normal ben, parce que pollution bi mom ça dérange parce que ñun ñu ngi préparer lo xamne li état bi waxoon na ne gelé na bépp agrément bu bees. Mhm. loolu c'est un pas. Mhm. Mauritanie gii ëppoon na usine sax ñu ngay tëj seen i usine Mauritanie. Mhm. gëstu leen loolu xool leen loolu. Mauritanie moo ëppoon usine ñu ngay tëj seen usine léegi état du Sénégal ñun peut-être yuuxu nañ parce que loolu lañ man bañ ne léegi dootuñu def seele nañ dootuñu joxe benn agrément bu bees donc usine yi nekk Sénégal set yi fi ne donc quelque part beneen bu si yokk c'est premier pas lutte bu ñuy def la

Le problème est là. C'est-à-dire que nous avons des fleurs, nous avons des fleurs, nous avons des fleurs, nous avons des fleurs, nous avons des nous des fleurs. Mais, mais ce n'est pas cohérent. Mais nous d'abord, il faut donner aux populations, qui sont que qui de que l'être au moins à bien voyager, c'est bon. dëgg la te léegi yooyu sax da jën bu neex yi nga dul fii Sénégal léegi bizarrement réew koy ñoom waaw te ci bëri naan la suñu réew yi lay jógee loolu liggéey nii nag mooy exportation bi parce que man aussi mool bi géti naa ñëw jàpp benn coof benn yaax benn benn jariñ waaw yooyu waa ji may fay mareyeur baa ngi sur place kii di exporté fay ma huit mille sept mille cinq cent dama koy jaay mu emballé yóbbu mais j'avais une question. mais voilà mais j'avais une question parce que sans rien il y wax par rapport à tu que tu est-ce que parfois. ni des limites par exemple tel type de jeune qui ne ko Mm-hmm. léegi bu fekkee ne zone euh, bi bi bi mool yooyu nekk genre jën boobu moo fa am. est-ce que tey ñoom am nañu droit dem si beneen euh, si beneen euh, si beneen xeer. noonu la waaw pour pour pour pour pour pour am fa jën parce que parfois loolu mooy indi conflit. Ah. ki warul woon ñëw sama zone kii war alors que parfois peut-être wóoruma damay laajte tere ah. am na zone yoo xam ne mën nañ fa tere napp tel type de jën alors que loolu rek moo fa am ñooñu ils sont obligés dem si beneen. Mm-hmm. waaw loolu loolu am la cest à que loolu Touba harmoniser. Mm-hmm. Mm-hmm. xam nga terrain yi. da mm-hmm. mu nek génne géeju Sénégal. te nga dëkk fi am ci sañ-sañ. parce que géej gi amul géeju Kaayaar amul géeju. géeju Wakaam géeju Sénégal ça n'existe pas. dëgg la loolu ko képp kuy mool buy wax ak yow. ku fi ñëw fii aussi di wax amul géeju waa nangam déedéet. ñooñu nag am nañ sañ-sañu comme ñoo koy fréquenté. mais ñii toogee leen nii ñii def leen nii c'est normal. loolu moo créé CRPA yi aussi. c'est c'est quelque chose de normal

mais amna ci dogal yo xamné ne li wax repos biologique au niveau national bon dañ doon def grande côte ak petite côte hmm. mais légui on a tendance à dire on va harmoniser lepp lu ñuy dogalati ci géej gi soit dañ naan petite côte bi yépp wala grande côte mais buñu gisé né day laal fi ñi mëna daw ñëw fi dañuy harmoniser def ko ci côte bi yépp pour que ñi yépp nek mëna nek ci si hmm. mais jën bobu ñuy interdire ah. ñuy ñuy interdire hmm. pour lan la c'est pour la production pour mu produire Euh, mu gën a sakkan ah, parce que defaraat. Ah, ah, euh, la mooy andi interdiction ak beneen bi tamit mooy. Mhm. Euh, tey li nga xam ne ñu ngi koy interdire si géej gi. Hmm. ay taxes la. Hmm. wala dafa am benn benn benn fil bu nekk si géej gi boo xam ne dañuy naan fii amoo droit napp fii wala amoo droit àgg fii. non interdiction moo commencé fi nga mujjee rek c'est-à-dire interdiction ne bul nappa feex bu ko def. Hmm. yooyu yëpp mu ngi xal di am si comme plateforme yi ni ngeen dégg problème mu ndar boobu. parce que plateforme yi dañ naa à 500 mètres. bu fa kenn évoluer parce que ay norme de sécurité la ñuy def quoi te pourtant mool bi mën na faa nekk évoluer ba dem bon je crois pas que yenn jafe-jafe léegi jën boobu ñuy ciblé espèce bu mu mënti doon moo wax la rek lu mel ni poulpe doo xam nga ko mooy waroom tànk yu bari mhm. Mhm. Mhm. yarank yarank dafay am moom moment boo xam ne bi dafay mel ni yëpp dañuy dañuy maase benn génération lay doon dañuy sew amul njariñ cest à moom la wax PP wala ñu né GP nangam nangam grand taille petite taille taille moyen affaire yooyu moyen M affaire yooyu amna jargon amna na langage. langage technique légui nak lolu ñun ñu gis né par exemple tout au début dañ doon wax repos biologique yaram ko par exemple tel mois ba tel mois alors lolu ñu gis né yenn say yi bu fekkee par exemple li ko dalay yoof ba peut-être ba yarax bala ba caare temps yooyu ñu wax ne dañuy repos biologique jën bi yaranka bi day dafay rëy day rëy si diggante boobu. Mhm. mais boo wàccee tuuti jëm mbuur dafay sew nga yéeg nii mu mu sew. donc quelque part léegi ñu ne kon CLPA yi jël leen dogal képp koo xam ne ki sa gox gis nga bu sew boobu rek li fi même sur les deux jours jël leen tout de suite arrêté ñi ngeen wax ak chef de poste ñu wax ne jën bi nañ ko bàyyi. mooy lii loolu nga wax noonu. nañ ko bàyyi mu màgg jën bi nañ ko bàyyi mu màgg. Mm. c'est jën màggam dafa gaaw c'est deux semaines trois semaines mooy d'un mois nga gis ko mu développé alors jën bu sew moom ngay indi jaay ko 1000 francs nga bàyyi ko dans une semaine deux semaines nga jaayee 2000 3000 mais sa njariñ mu ngi si. Mhm. mais da ngay gis ñu dëgër bopp ñoo xam ne ñii comme noonu soit ñu dem sàcc dem dugg ji fa nen wala ñu ñëw dugg foofu yóbbu ko fa nen yóbbu ko fa nen jaay ko parce que fii dañ naa bu fi kenn teer doo teer jaay fi. Mhm. marché bi localité boobu jël décision ne nañ ko bàyyi mu màgg. Mhm. doo fa am sa sañu teer. léegi jàpp naa ko si boobu yóbbu naa ko comme comme Mbour waxuñu loolu ma yóbbu ko Mbour jaay ko foofu. donc nga xam ne dégâts yi aussi comme li ma doon wax sànq. Mm. ñun si lañ bokk pêche artisanale. Mm. yooyu yëpp ay mbóot la ay yu saw yu nekk suñu biir yoo xam ne yi c'est une réalité dañ ciy teg baaraam ñun. waaw ñun dañ ci teg baaraam comme ni ma la waxoon rek man faruma ma sàmm wala ma dem li ma lay wax axulaay taala laay tax may wax parce que mool la. Mm. damay dem géej ba tey sama dem géej nag wàññeeku na mais damay dem géej ba tey barki dem rek laa mujjee si garañ li muy ngelaw yëpp dugg naa si biir géej. donc nga xam ne xam naa géej daal am na lu ma si xam.

buñ ci wéyee rek jàmm rek la ñuy gis. Mhm. léegi Sarr ah, xam nga mhm. am na man tam lenn lu ma xaw a jaaxal bon mhm. man ñi ma xam as bëriwul nag. am na ñu ma xam ñoo xam ne dañuy yëngu ci wàllu. mool napp yooyu te ñu ma gis ñi ma ci xam ñu ci bëri nag yàlla da leen a maanaam ci am am daal su ma gisee waaw man léegi man li ma jaaxal mooy lan moo tax finalement léegi surtout ci zone yi nga xam ne affaire napp gi ak phénomène bi xew léegi woy immigration clandestine bi jékki-jékki dem alors que man dama jàpp ne malgré que napp gi am na problème mais ñi ci yëngatu yàlla fàttewu leen waaw loolu am na. waaw ba si man mii di wax ak yow. sama caas laa yor caas bi wala caas. waaw jàpp par benn. waaw yor ma fii laa tourné de. waaw mais am naa soxna maa ngi sama makkaan je si à l'aise daal. waaw waaw waaw doo lay sant mooy loolu nga wax noonu. mool bi yàlla bàyyi ko. dëgg parce que famine amagul si mool xi mool xiiful. dëgg la même boo demul géej sax.

mu ngi mel comme li ma lay wax yàq bu sew boobu nekk suñu biir. Mhm. dañu am génération bu dëgër bopp bu fi ne. saa jël la di maa ngay wax tele laa nekk. génération bu dëgër bopp boo xam ne bii bon óolu nañ seen bopp xam nga mool dafa am doole. Mhm. parce que li muy def physique la. chaque jour yaa ngi si moo tax mool bu sew nii te c'est rare nga gis même bu sewee sax day sec quoi waaw dafay am doole man bu ma la waxee samay at par exemple.

mën nañ wax si si ay jamono yu gàtt avant 2000 ay ay cinquante cent gaal ñoo fa nekkoon mais bu ñu jëmee ba léegi ay trois cent nangam gaal ñu fa nekk si te port bu ndaw la. Hmm. yeneen port yi kenn xamul la da ngay gis genn kër au lieu de génn gaal mais da ngay gis genn kër ay juróom-benn gaal juróom-ñaari gaal géej gi li ñu sëf moo ko antalu donc comme antalu li ñu sëf géej gi nag hmm. jën waa mu ngay wàññeeku jën waa ngay dem. Hmm. li ñu doon gis ñun. parce que ñun biñ jàggeti da ngay dem si année soixante dix quatre vingt yi rek yii nii. boobu yenn génération bi fi nekk rek juddooguñu. Mm. mais année quatre vingt yi quatre vingt dix mais dama doon choisir jën bi may jàppi. Mm. sinon bu ma demee bu ma ñëwee du ma gis ku ko jaay. ton ngot bóor yooyu yëpp du bokkul si jën bu ma indi. Hmm? non doo gis ko ko jaay y avait pas bu demul géej ba fa ñuy dem gejj directement mu tooy xib yóbbu ko géej bu ma lay wax ne coof jàpp naa ko jaay ko mille cinq cent coof mille cinq cent mais maintenant léegi benn benn coof moom mooy def ay vingt cinq mille ak i trente mille jëndee mu xar sax moo a yomb dama doon choisir fi may toog sama kër suba damay dem géej tel jën laay nappi beneen jën bu dal sama caas dama dama soit dama lay waggi wala bu ma la jàppee damay toxu parce que jën yooyu bu mu leen indee du mu leen jaay mais loolu amatul léegi lu waay gis jàpp ñu dem ba sophistiquer matériel bi léegi da ngay gis ay sondeur ay sondeur GPS amna légui parce que ñun liñ jàngé moy xam xam biddew naaj temps des óol des yooyu lañ jànge boo leex léegi fi mu nekk je suis obligé GPS comme nous donc quelque part sondeur sa dañ dañ day la tourner da ngay ñëw gis bu jëkkoon parce que naaxu jën mooy fitti si mm. par exemple bande de poisson moom day fitti si kaw nga gis ko muy fetti mm, mm. ñun nañ tel mais légui bu que jën bi dafay am moment ne wacc do gis mais voilà mes sondeuse mm-hmm. parce que vous guéné dafa am puis des écrans échapper donc ak GPS aussi nuire parce que GPS da pile ne fi de centre euh, studio mm-hmm. te

wax nga ko sànq. Mhm. comme dañoo am li nga xam ne moom mooy gouvernement gouvernement bu bees. Mhm. juste ñu ngi fiy doog a def xam naa quatre mois yooyu. Mhm. Euh, lan ngeen xaar si li nga xam ne tey moom mooy euh, ministre bi si comme ay accord wala ay changement yoo xam ne peut-être mën na ko accord mën na ko apporter si li nga xam ne moom mooy euh, pêche bi. waaw di de ñoom dañ leen di sant d'abord parce que quelque part booy seet déggoon ngeen fi li ñuy wax ab charte charte bu ñu doon signaloo. Mm. ñu doon prétendant pour kii. dëgg lañ ko doon defee. Mm. loolu may remercier de passage ñom ñep man maa ngi woon ci biir parce que coalition grande instance yi nek Sénégal yëpp ñoo bolo xalat lool deug charte bi donc ce qui veut dire acteurs yi ñoko ko defar. Mhm. mareyeurs yi femmes transformatrices yi mool yi ñoo dajalo defar ben charte ne li buñ ko defee géej gi baax. Mhm. légui nag proposer que candidat yi nga xamné ñoo fi nekkoon ñi fi nekk tay yalla def jamm ñu ñom ñoo ñëwoon ñoo ñëwoon signer ci kii bi chef de délégation bi jante la woon. Mamadou Lamine jante. ministre actuel bi de la pêche jour boobu mu nga woon si kii am naa fi ay vidéo yoo xam ne ne ko wonone ngeen gis né jour boobu mu nga foon mu jox ay proposition mom aussi mu nekk ko xam geej parce que juriste la affaire loi ou geej la jàng daal. loolu wa voilà loolu moy loolu moy ilam. donc mu nekk ko xam ne kii dañu am ci mom yaakaar bu baax. mais nag téréwul gis nañ né tout au début lu fi amoon loon am na moi di ne jot na publicité publier liste navire yi hmm. muy bateau yooyu ngeen di dég xam nga hmm. dégg ngeen ay prête non, affaire prête yam, hmm. man l'autre tamit comme ni on ko il faut attaquer les textes parce que texte bi moo permettre sénégalais bi créer entreprise jiitu sa kanam oo oh, waa le bi wala wa Guinée ñu ñëw nekk si ba ginnaaw ay texte nga créé léegi qu'est-ce qu'il faut faire c'est-à-dire qu'on les accuse c'est vrai que li ils sont ils sont venus au mauvais moment. géej gi mënul a ñàkk jël mm-hmm. ça mm-hmm. c'est ça l'inconvénient. Mm-hmm. affaire peut-être venus di Le moment yu bari. moment moi je le dis. ñeneen am forme pour mais moi moment yi ñëw moo moment non yi Sénégal il y a une quantité de te ñun ñi fi nekk doyul. population ñu nga bëgg fi indiwaat ay bateau yu jël jël li si ëpp dañ koy yóbbu mais c'est pas cohérent baaxul. donc loolu nekk na loo xam ne ni ministre bi par exemple tout au début gouvernement yi fi jaar mosuñu publier liste. dañu daal ñamal nii rek mais jël mais un moment donné ñoom publier nañ liste yi. donc liste yooyu di nga gis ne ñoom ñu ngi fexey pour une logique de transparence logique transparence boobu affaire yooyu par exemple nekk na loo xam ne lii dañ leen si remercier mais moment yi dégg ngeen par exemple comme que ne ministre bi est-ce que moo ko wax wala waxu donc loolu euh, nek na lo xamne li lii ñun dinañ ci dinañ ko gëstu ba xam ndax mom lam am parce que yegg na si boo wax ne bateau pourtant euh, minorité lañ ci géej gi de pêche artisanale leen ëpp. xam nga nag réseau yi en général mën nañ créer ay wax. waaw dugal ko jaxase moo tax tey baax na sank yaa ngi wax. comme mbirum bari ñi moom. la ceel ba mu leer. waaw xam nga dama ne oh, réseau. non non non c'est vrai c'est une réalité. pour ma pour. non non non la jël ku fu dëkk.

Euh, secrét nekk euh, coordonnateur CLPA bu Dakar Ouest mais aussi euh, nekk secrétaire général nekk coordonnateur national du moins de la coalition nationale contre les usines d'huile et farine de poisson il naa a ah, simple <laughs> alors nous kontaanoon nañ dalal la ñu bàyyi la nga tàggatoo suñu temps nous malheureusement jeex que mm. waaw doole di leen parce que comme nous ma ko waxoon ci commencement bi rek ñun suñuy wax fi mu war a yegg yéen a ko fa war a mm. si peut-être seen liggéey la yéen mm. mais dañ leen siy parce que am la bonne information dina tax nit ñi xam waaw parce que réalité yi am na lu ñuy dund hmm. li ñuy dund nag yéen am ngeen si yëg-yëg parce que am na loo xam ne lii comme dañu wax géej hmm. aw jën la ñuy wax si géej hmm. géej par exemple kay consommateur bi muy yéen par exemple boo leen gisatul jën di ngeen xam ne am na lu xew am na lu xew si géej ñu ngi jéem nag jéem ay pexe comme niñ fi jot a waxee usines yooyu ñu ngi si mool yi ñu ngi si pêche industrielle ngi si accord de pêche yaa ngi si lépp ngi si loolu yëpp nag am nañ yaakaar si gouvernement bi fi ne buñ toogee autour d'une table par exemple forme yi nga xam ne moom war a génn pour nit ñi dem si jàmm jëm yu dellu si waat loolu def naa ne dina nekk loo xam ne lii lu baax si Sénégal yëpp la ko. merci beaucoup. alors euh, suñu temps jeex na maa nga saa bàyyi nga tàggatoo. incha allah waaw waaw naan naan vraiment tey am nañ émission bu neex man mi jàng naa ci lu bëree bëree bëri. et puis dana permettre na ma comprendre problème yu bëri yu nekk ci pêche bi euh, di ña wax nit ñi rek ba suba ak jàmm euh, di ñaanal ñëpp jàmm euh, di gërëm suñu invité bi bu baax a baax